nan la ñuy baaxalee suñu diggante ak yàlla. xol moom wol li seen koo yem nan la lim ñu wax. xol wol li seen koo xaj nan la ñuy man ñoo dem. kër gu ne. wax ak boroom. looloo tax nit ñi di booloo. ndax ñu mën a waxtaan seen diine. الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قلنا لمن قال قال لله لله ولكتابه ولرسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم وآمتهم رواه مسلم رواه مسلم ثم لي كم النبي صلى الله عليه وسلم الدين مسلم رواه مسلم mu ne diine daal di setante xol la laabiriiru ko wiyata toon laabiriiru laabiriiru allah mu ne diine laabe biir yàlla la lu ñuy wax laabe biir ah, yow mii nit ki la nga laabe sa bopp sa diggante sa yàlla nga laabe biir sa bopp sa diggante ak adde yalla nga daatee diir sa nga bàyyi tere tere yalla nga def loolu ba mu wér ci ba mu daal di wér ci yow nga dooga daal di laabee jullit comme yow boo ko gisee muy def lu baaxul nga ne ko mbokk jullit lii baaxul. saa yi omo ussi. boo ko gisee mu wàññeeku. nga ne ko mbokk jullit yow dee da adi heeku. waaye li jiitu. ade ma haaldude kon. bala ngaa wax ak keneen. laam hoore ma reedu bu leen waar ñeneen ngeen fàtte seen bopp. noonu alquran bi. noonu la alquran wax. la. alquran ne alquran nee na. ataamuruna annaasa bil birri. wal haadu wa tansawna anfusakum. wa tansawna anfusakum. wa antum tatluuna mu ne ngay waar nit ñi mel leen nii def leen nii bàyyi leen nii def leen lii fekk yow yaa ngi fàtte sa bopp la ngay wax defoo ci dara. ma ne ku mel nii daf kooku amul xel. déedéet kooku amul xel. nan la nit ki di digalee lu baax fekk moom du ko def kon wiyata woto kadema de nan nan lay waxee bu ñu ay tere fekk moom moo ngi def ay tere am na tere tere nit nit ki day defee loolu ay tere fekk loolu ay tere la jullit la loolu la wax mu ngi julli waaw loolu la wax mu ngi dem jàkka mu ngi julli mu ngi julli nin ko digalee na jullee noonu fekke nag du nu mu bugg a jullee ni yàlla wax na jullee noonu lay jullee waaye e nga gis si moom mu daal di ca ba baax mu ngi julli omo yaha jama mu ngi dem jàkka kono mu ngi manul mbawi tere tere yàlla si allah yinato alqur'ana so yàlla waxoonna sa alqur'an inna salata inna salata tanha anil fahshai tanha anil fahshai wal munkari ko haala la mu ne julli ina itta boni day dindi bon bon moƴƴaani ak lu baaxul ak ñaan di jëmlu jullit yi ci jikkuji makko si ay jikkoom alhaali makko si ay alhaaleem si ay mbiram tamoyi ɗum mo dindi ko ci loo won tamoyi ɗum ɗo mo ko ci lii wono tamo e bonka mo dindi ko si lu bon o wattamo e moƴƴe mo defaar ko si lu baa sa sa ngay dem ngay ngay julli ngay joxe asaka ngay dem aji ɗo fof aɗa waɗa ndi yeb yaa koyde haajoji batey ɗemnal ma salam min rokki ummaade e tebbude julɗi manon joge si daardi yappu julli ɗi ko gonɗa fof aɗa ñaamat fo nekke yaagilendi lekk aɗa ayibina jum yaagilendi a yibaal to haalaama suñu waxee ku baax mbiya e ngane e so moƴƴo haalaama suñu waxee ku baax mbiya ko hanki tan ngane jemmu rek o wayi nii la meloon moƴƴo haalaama suñu waxee ku nga ne lii daal da koy fen rek ah kon doo tax ngoon daal yow fii rek nga nekk na al iman loolu da lay xam loo demandé sa laaj sa julli gii wérul sa usul sa tiital ndaxte sa julli gii bu wéroon a yàlla tamit da ngay génn a yaltade aññe juuɗo. da ngay génn si julli. a yaltade aññande juuɗo ka. da ngay si bañal julli. to Allah ci moom. li ko yàlla may. a yaltade yennude juuɗo. da ngay jóge si daal xas jullit a yaltan e tuumde juulɗo da ngay jogi si tuuma jullit a yaltan e tukkude juulɗo da ngay jogi si tuuma jullit a yaltan a yaltan da ngay génn e fewjande juulɗo ko feewaani daal di fexeel jullit lu baaxul oɗo nasihat mu ne oɗo nduɗo lam nduɗo lamndir mu ne laaɓee biir bii ko ko wiyaa ɗon ko allah ko loolu liñ si wax yàlla. xamulemaa i xoolemaa i xamulemaa i julli. sa digganteeg sa bopp ak sa digganteeg jullit. laabundiraa leen e deftere Allah de. nga daal di laabee biir tamit si téere yàlla bi. des nga daal di koy. ko dewi ko dewi bàyyi xel ko dewi yan maa. lim lay wax. ko dewi yan maa wat wata awat. lim lay wax defal lii bul def nii. daa bum wata andaam. xoolal nii bul xool nii. kenn bum wata a xedu. déglul lii bul déglu lii. ñaam wata a ñaam. lekkal lii bul lekk lii. xaal wata a xaal. waxal lii bul wax lii. même lu wata a même. laalal lii bul laal lii. yaa du wata a yaa. demal lii bul dem lii. kuutoro tum e suddi ɓe wata kuutoro tum. ngalaaɓe biir hoore ma. sa bopp. E nga daal di koy mën a digal. say say sa njaboot. yow suudu ma. ak sa njaboot bi nga jur. tawee dee fekk ñii ko kaalaɗa ko ko kamɓe gaɗoriɗa hen lagay waktu ñoo nga ko jiitelee mbiyana nga gis nit taw ko ceerno fekk sëriñ la loolu la wax o janginowo jàngalekat la ko ne xoowo yar la yarkat la tawa jom suuma ko nga fekk euh, jabaram soxnaam hay fatiha bi fuga waawa fatiha bu mokk sax manu ko saa yu moyo salligino o waawa soo ko waxee jabbal manu ko ala ko jongal kam amul a wafa sangaay tawi jongalde makko ko nehoowo ko baajotoɗo e fekke nag jëkkëram yar kam la waarata kam la loolu ko laaɓa tarim e nelaaɗo allah sa sallam ko li ngay laaɓe miisi yenantibi sallllahu alayhi wa sunna makko sunnamdi allah wi to alqur'ana yallah waxna si alqur'an in kuntum wa in kuntum in kuntum قل إن كنتم تحبون الله تحبون الله فاتبعوني fattabi'uni so ɗon yiɗi yiɗde allah mo ngeen bugge buggu yalla on dañata yiɗde allah so wona allah yiɗa on du ngeen am buggu yalla so ɗum yalla bugguleen on dañata allah yiɗa on sona jiɗonde laaɗo allah sallllahu du ngeen am yalla bugguleen so ɗum ngeen buggu yonente bi sallllahu alayhi wa sallam dañuy yitte nelaat ala sa sallam boo amee bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam budda areenude rek sunna makko fof nga daal di wattante sunnaam bi sunna makko o ndaxte sunnaam bi o sañi heen ko lum ci bañ